jërë ngeen jëf euh, chers internautes yu Dakar Actu ñu ngi leen di nuyu euh, ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci quartier Grand Mbour euh, ci biir commune bu Mbour li ñu fi indi nag xam ngeen ne am na benn fee boo xam ne nii mu ngi fi xew ci biir mbuur ci quartier bu ñuy wax Cossé Est la fay xew nag moom mooy ñaari wujju yu doon jote Euh, ci maa war a togg du ma euh, waroo togg jëkkër ji àttee leen ba mujj jëkkër ji am ci problème ak ki nga xamante ne moom mooy kenn si ñoom di wuyoo si turu euh, jabu dukkure ba mujj gi ñu jote mu daal di xeex moom ba mujj daal ñu yóbbu ko hôpital faatu daal moo ci tegu ba tax na nag famille yu ki nga xamante ne moom mooy jabu dukkure boobu ñoom ñoo woo fii Dakar Actu pour wax affaire bi nu mu demee wane seen métit Euh, fii ñu nekk nag kër nijaayu Diabou Doucouré la muy wuyo euh, si turu euh, Jabel drame kon nag ñu dugg xool famille bi lan lañ ñuy dénk nijaay nga si ci xale bu jigéen bi Qu'est-ce qui, s'est réellement passé Réellement, ce qui s'est passé réellement, euh, si je voulais dire, peut-être je vais, je, vais mentir. Mais là, j'étais là vers 14h. Une de mes nièces qui m'a appelé de Dakar, qui a élevé la, la, femme, qui est Djabou, qui m'a appelé de Dakar. Puis me dit, ah, tonton, parce que c'est une nièce à moi. Il me dit, tonton, ah, il y a un bébé qui m'a appelé de. Bébé, c'est le surnom, l'appel qui m'a appelé. De Mbour. Il me dit, ah, son mari a pris ses bagages dehors, et qui a ah, dit, il ah, m'a battu. Il me dit, ah, on est Alhamdulillah, Rabbil Alamina. Comme ça, je vais aller la chercher. Qui l'a baissé, sur ma agne. Mais damay dem ci ba en quand j'allais pour aller à, j'allais pour euh, Thiocé

ma woo ko di ko daraayee noonu ma ne ko bébé ça va ñu nuyenté mané ne ko ma dugal la xaalis doo ma ma sax merci mu daal di reetaan ne ma gisuma ko sax mané ne ko dugalal na la xaaliss bi ma daal di coupé ma ko kon ci kanam ma couper lég bima couper coupé jëkkëram ma téléphone né ma nday ma ça va mané ko ça va mu né ma numéro jattu la soxla won ak numéro tonto Ousmane mané ko man yoruma sen numéro dem fa bima couper après man ma wo bébé sama rakk bi bi ma ko woowee ma ne ko bébé ah David de woo na mbaa du xaalis bi ma la envoyé lool la mer mu ne ma déedéet mu ne ma nday ma di mu ngi nii nag jabaram dafa ñëw fekk ma togg ba baaral mu jógee fee ne ma day togg ma ne ko doo togg man togg naa ba pare nee na mu dem wax jabar ji mu dem wax ko jëkkër ji David ne bi mu ko ko waxee nee na David ñëw fekk foofu di ko attaqué. ma doon tante la bébé mais maa ko yor bi ma ko yaayam di jox boobu xam naa septembre du ko paase waaw maa yore nag ba mu ba mu màgg ba mu muur ko ba mu dem sëy ci explication yi nee nañ bokk nga si ñu mu mujjee waxal. waaw problème bi am est-ce nga dellu si si séquence boobu. waaw waaw damaa toog sama doom bi jigéen bi téléphone am daal di sonné bi mu daal ne ma am bébé la léegi ma daal jël ñu nuyoo ba pare mu ne ma Tandiatou man de affaire dawet sax moo tax ma lay woo. parce que dañ daf nee na daf maa fase ma ne ko fase nii rek mu ne ma dañoo jote si affaire jabaram affaire togg dañoo waxante affaire togg ma dem sama jël sama xaalis dem dugg sama ñaari fan ñëw ba commencé togg ba sori nee na mu ñëw jabar ji ñëw ne ma andi ma togg ma ne ko mënoo koo togg maa dugg sama ñaari fan bàyyi ma sama ñaari fan boo paree nga jël sa dépense nga dem duggi ma ko nii mu ma waaw mu ne ma jabar ji daal di mu ñëw fii amul lu ma waxul façon saag bu nekk moom ma koy saaga mu ni jël sama bagage si sànni ko nee na fase na ma ñëw leen ngeen jël si ma jël si leen ma ma ne ko bébé defal ndànk mu ne ma déet mais ku ñu fase ba pare lu ma fii toogat jël si leen ma ba ma yeewu tak mu may bippe di ma bippe mu bippe ma trois fois ma ne kii moom dafa ñemee bippe après si laay génn mu dégg moom mu woo ma téléphone ne ma aw ma crédit maa ngi lay bippe rek woowuloo ma

mu ne wujjam bi daal di ñëw ne ko bàyyil ma toog mu ne ko noonoo commencé naa ba pare nee na mu ne ko bàyyil ma toog mu insisté deux fois mu ne ko commencé naa ba pare après wujj bi dugg ci néeg bi daal di woo jëkkëram ne ko waa bébé dama ne ko damay taal bàyyil ma toog mu ne bu ma laal ci nam après jëkkër ji daal di koy woo téléphone ne ko waaye yow commencé di ko saaga lan moo tax diw ne la bàyyil ma toog nga ne ko bu ma laal bu mu laal sa cin bu ne ko noonoo waxew ma ko ko noonu daf maa fekk ma taal ba pare su bëggee togg day teel a yow mu taal ne jëkkër que commencé di ko saaga ay ndey si téléphone bi mu daal couper. coupé. hôpital Teffe je les trouve tous là-bas et qu'est-ce que je trouve lan la sans vie alors encore sans vie je dis eh bon alors c'est là où les les frères et les sœurs de de de bébé mon euh, aussi sont venus là-bas alors chacun qui ils ont essayé d'amener une version ba dafa doon kii dañ doon kii nag mu am malaise mu kii c'est la famille de. Le mari qui disait comme ça. Alors, il ñu paree a que vous après quelques temps après a eu yóbbu corps de l'hôpital Grand-Bourg garé ambulance l'ambulance, j'ai mis le corps dedans à l'hôpital Grand-Bourg pour autopsie. Bon, c'est eux seulement qui étaient rentrés dans l'ambulance, la famille de, de Marie. Bon, malheureusement, j'avais quelqu'un avec qui j'étais. On a suivi. Ñu dem eu jël corps bi yóbbu ko à la morgue. a leen ko fofu

maa ngi di wootaan jatu moy ki tok ni maa ngi nii wootaan jotu si coupé ak mom ci wax jojo la coupé ak mom ma wo sama rak bu ma ibu fonek, nek ibu ne ma maa ngi nii géej ko dawal gaaw bebe mu ngi joté ak David leg ibu dem touti ma woowaat ibu jotumako ko ma woowaat ibu jot ko mu ne ma nday ma maa ngi nii yegsi naa si kër gi waye fekk ma la dañu fekk ñu dem hôpital waxal xale ngeen ñew jël man xaaral dina la par jëkkër ji si boppam daal ma woo bi ma woowee ñu nuyoo ba pare mu commencé di ma wax man daal wax yoo xam ne amul bopp amul waxul sax si affaire passé bi waxul sax affaire passé bi ma ne ko David fekk sa xale bi moom wax na ma passé bi ma ne ko David ma ne ko ñun ay góor yu set wecc lañ ma ne am na yoo xam ne boo ko defee rek dang ñuy gaañ ma ne ko góor kenn du ko def yenn yi ma ne ko saaga ma ne ma nekk xale ba léegi man ko saaga du ma saaga kenn mais bëgguma ku ma saaga surtout saaga ndey foofu la ñu waxee ma daal mu daal man dama la dama wax daal pour nga waxal ma ne ko aw ma dara lu may wax ma ne ko maa ngi lay coupé ma coupé fekk ne woon naa xale bi naa la woowaat si laa coupé nag woo ne sama doom bu jigéen ndey ma ne ko woowaatal bébé ñu wax ak moom ñu mën a gën a comprendre li mu wax si lañ woote nag ñu ne mënuñ ko jot. bébé woowaat ma téléphone ne ma faatu mi ngi nii di jël sama di ko sànni ci mbedd bi. sama xol bi mu tàng ma ne ko bu jëlee sa yére sànni ci mbedd bi nga yit nga jël ay yérem sànni ko ci mbedd bi ñun mun nañ laa yor léegi après ma maa ngi koy dégg moom jëkkër ji si boppa mu ñuy saaga di wax di saaga ma ne ko bébé mi ngi noonu di la saag ndayam gënul sa nday ba lay saaga <coughs> après si la coupé si la coupé wee ma dem dem dem mu xamatuma lu may def ma woowaat ko ma ne ko bébé te nga faa bàyyi bagage yi nga ñibbi kër ga ba ñu réglé problème bi mënu ma déedéet faat sama doom yi ma ne sa doom yi yàlla moo leen yor bàyyi bu ñu waxee nga ne ma sama doom yi néew ma la nga tas kaay toog fii nii ba ñuy lijjanti problème bi ba pare après nga delluwaat mu ne waa baax na xaaral ma woo tàncatu tàncatu may ki ka yar mu ne ma xaaral ma woo ko ma ne ko waa baax na ma dem dem dem diggaatuma ko sama xel mu jaxasoo. ma woo sama doom bi faatu bi ma ko woowee rek mu ne Fatou di yuuxu ma ne ko Fatou lan la mu ma wuy bébé dee na ma ne ko bébé mënul dee parce moom laa doon waxal léegi nii téléphone bébé di dee ma ne ko bébé mënul dee gëmuma ko. ma woo sama xarit beenee toog ami sanu ma woo ami sanu moom tamit ma koy woo mu yuuxu ni ma bébé dee na si laa kon bébé dee na si laa gëjee si laa xamee ne kon bébé dee na ñetteel yoon bi ñu ne dafa occupé nañ xaar ba ñeenteel yoon nag si lañu woote ñoom nañ bébé dafa daanu crise yóbbu nañ ko hôpital waaw ñu dafa daanu crise yóbbu nañ ko hôpital maanaam man bébé léegi laa doon wax ak moom loolu lan la mën a amee ñu ne ah, ñu ne dafa daanu crise waaw ba ginnaaw gi nag yàggul dara ñu woo ñu ne ñu na waaw nii daal laa si am. ma woowaat ko ma ne ko bébé maa ngi nii di ñëw mu ne ma déedéet Fatou bul ñëw de xam naa sa jikko toogal rek bul ñëw sama xol bi tàng ma ne ko waa baax na bu ñu la rayee kon nga dee benn si laa meree nag woo sama rakk yaay bi sama caatu ñam yaay ma woo ko ne ko dama kër bébé ndax David a ngi noonu di lii di sànni ay yérem ci mbedd bi demal peut-être yow bu la gisee cooli mu sedd léegi kooku bi mu yeggee dama faat fekk ma fi kenn de juste mu woo ma euh, doomu ji peccor ko dama faat bébé dafa crise de ma ne ko crise ma woo Ibou ma ne ko Ibou yënga ne bébé dafa crise mu moo tax fekk ma fi kenn nee nañ xaw mi ngi hôpital Tefes ma ne waa demal léegi hôpital Tefes Ibou ci la demee hôpital Tefes fekk ndaxte bébé si kër gi la deewee ndax man biñu may naan bébé crise na ak ni ma ñëwee ci kër gi fekk ma fa kenn benn la ma ne leen mais ana bébé ñu ne ma bébé bi ngi hôpital gaañu na ma ne ko yéen waxoo leen dëgg parce que ngeen may woo ngeen ne bébé dafa crise ak ni ma yegsee benn la kon bébé yéen da ngeen ba mu dee ngeen woo na ma bébé dafa crise ma dem hôpital 11h 11h ma dem kii di xaar je voir a le dossier mu ne ma woy euh, dem leen euh, dem bi dem leen Maroc bi ngeen xaar foofu ki médecin bi dina ñëw ci war def autopsie bi dina ñëw dina fekk alors que tout ça c'était du bluff parce que pourquoi je dis que c'était du bluff parce que quand je suis allé là-bas toute, la famille était partie on était plus il y avait plus que ça la maison était pleine ici depuis le 25 bon ñu dem toog foofu di xaar di xaar presque jusqu'à 13 heures hein alors un des frères qui vient c'est c'est euh, il s'appelle Mesa. mais c'est Samb il me dit oui moi je suis là est-ce que est-ce que mën naa la gis mais kii ma ne quoi ah, d'accord ñu jóg waaw ah, j'habitais dans un coin mais man frère David laa ñoo bokk euh, ndey ak baay bon mu ne waaw dama bëgg ñu waxtaan waaw dama bëgg daal boo ñu mënee boo ñu mënee may koor bi ñu kii ko parce que famille ba s'est réunie pour yóbbu ko Touba dem ñëpp pour yóbbu ko Touba dem dem rob ko foofu mu ne ko mais yow mais yow mais yow damay fonto ou bien da nga yàpp ou bien ou bien lan la yow kii envoyé ñu fii pour ñu yóbbu ñu ne xaar kii autopsie mu ne ma non tout ça c'est déjà fait ba ñu jot nañu kii bi ci tout ça là ba yóbbu ko poli ba am certificat bi ana mooy le enterrement kii bi moo des ah bon c'est comme ça que la ñu def des météo j'allais voir le CBI là mais ñu doon kii ak kii je demande mais comment ça

waaw ñëwoon nañ pour ñu waxtaan mais xam nga ñu tamit dañu am kilifa mënuñ tëb rek def lañ suñu topp suñu ginnaaw kilifa rek ñoom ñëw nañ fi une forte délégation j'ai pris presque tout COCS notable yeeg métier yeeg ñëpp ñëw fi fii yëpp fii dafa feesoon dell ak talib yëpp ñëw ñoom ñu waxtaan mbir mi ñoo ko bokk ñoo tooñ ñoom ñoo tooñ ñoom ñoo kii jigi ñoo ko ne ñoo tooñ ñoo ñu tàgg bébé ku baax la sëy ku sutural jëkkëram ku kii jëkkëram ñu bari sa waniyente bu ñu amoon jabar bu seen jabar bu meloon nii bébé ah vraiment c'est vrai ñu jël et puis effectivement wax nañu dëgg bébé musuma ñëw kalaami fu ñaataat musu ñëw kalaami musu ñëw kalaami ci kii mu ñëw kalaami ci sœur ñëw waaw vraiment vous êtes kii vraiment pour cette plainte bi faut mu nekk nii léegi ak ci moom ni kii dara yéen rek yéen a mën a régler ces problèmes bi ngeen di seen parce que boo ko tamit war si les enfants dix ans qui ak yooyu tout ça là ma ko mais écoutez oui mais il faut parler de la sorte léegi nag n'a pas pensé à ça quand il battait ces dames là devant les enfants moom xalaatul loolu Mais est bien vous voulez parce que parce que vous voulez sauver sa peau lui oui léegi ku dee nag qu'est-ce qu'il faut faire mais pour le moment je ne peux pas répondre à ça. mais des, des cas comme ça. oui de c'est pas nous de dire que oui baal nañu quand même c'est trop dur. donc yoon def liggéeyam. yoon def liggéeyam. bi ma demee ba tiim ko si morgue bi si laa doog a gëm kon ñii lu ñu wax kon dëgg la bébé dee kon David moom naqaral na bébé ba bébé génn àdduna. chers internautes yaakaar naa ne euh, tungu ne du new du teew ñuy nataal. Euh, bi ñuy door dégg ngeen li ma leen waxoon dañu duggoon ci biir pour yiir li nga xamante ne ni mooy impression ak euh, naka la mbir mi demee ci euh, waajur yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy kii suñu borom moom muy jabu ñu gën ko xamee si bebe dégg ngeen nag ñoom lu ñu wax ñoom daal nee nañu fi mu toll nii li ñu bëgg moom mooy yoon doxal liggéeyam jàpp nañ ne seen doom dañ ko faat ci anam yoo xamante ne nii teguñu ko ci yoon. donc mooy li nga xam ne nii génn na ci seen i euh, waxtaan muy euh, nekkoon mbir moo xamante ne mu ngi xewee fii ci Mbour euh, ci quartier Thiocé Est Dakar Actu Mbour ñëwoon fii nga xam ne moom mooy ci kër nijaayu xale bu jigéen bi di Diabou Doucouré ñu gën ko xamee ci bébé mu nekk fii nga xam ne moom mooy ci Grand Mbour